Nous sommes Sila, nous sommes à faire. Monsieur Sila, nous avons eu une élection. Et bonne jangre nga ci yu am solo di présidentielle. salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi ziar mbokk Sénégal yëpp laaj bi am na solo parce que élection yi jàngat yi dafa bari li ëpp importance nag mooy li ci ëppoon importance mooy président Macky Sall yàlla suturaal na ko. ci bilan bi nga xam ne sénégalais yi xam nañ ne def na ko ñu sukkandiku ci bilan bi delloo ko réew mi à pour mais jàngat yi ci war a tiire bari njëkk mooy ñu xam ne coow li moo liggéey bi parce que ñiy wax bu fekkoon li ñuy wax dëgg la sénégalais yi du ñu war a président Macky loolu benn jàngat la ci ñaareel bi mooy président Macky Sall moom ci boppam war na jàngat biir kaawam parce que lu doy waar am na ci loolu xam naa dinaa ko wax ci mu ñuy jeexal lu doy doy mais en tout cas mën nañ ci tirer lu bare bare bare mais li ëpp solo tey l' essentiel mooy président Macky Sall bilan moo ko falaat amul benn nit boo xam ne mën nga mën nga wax ne apporter nga président ci lu dul bilan na nag am ay nit yu ko jàppale yu ci sonn yu ci taxaw mais bilan moom ak quatre-vingt pour cent bilan moo ko delloo fi mu nekk tey te loolu ngóoram la loolu itam lu mu bëggoon la boo gisoon mu doon rayante pour def dara ci réew mi loolu la loolu la ko Sénégalais yi fay. mais léegi pour prendre au mot nee nga léegi léegi am na ñu bari bari ay yàq-yàq waa saa waaw xam nga dafa am débat bi fu ko nit ñi yóbbu foo xam ne bëgguma sax mu nekk mooy que réew amul benn réew ci àdduna sax manière générale yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne moo bind nit ñi amul unanimité ñëpp boolewuñ ko gëm te tereewul mi ngi dawal yërmaande ci ñoom di ànd ak ñoom yonente bi sallallahu alayhi yàlla wax ne moo tax mu bind leen ñëpp boolewuñ ko nangul. Serigne Touba bi suñu yaakaar ñëpp boole ñu ànd ak moom te tereewul àdduna ngi dox yàlla nag moo féete kaw ñëpp yonent bi topp ci yaa kanam ko ci topp doog ca topp Serigne Touba suñu yaakaar tey ak ëllëg ñun nga xam ne amuñu lu dul moom ñëpp ànd ñoo moom te tereewul jàmm la nekk woon ñi àndoon ak moom. loolu moom déranger wul ku mu neex mën nga jël camp bu la neex nga faral mais li kes li ñu gën a déranger mooy que document bii nga xam ne am nañ ci muy 17 ministres de la république yoo xam ne Macky Sall moo leen jox ndombal tànk amul luñ ko defal lu tax mu jox leen ak ay directeur général ay homme d'affaires yoo xam ne lu ñu am tey ginnaaw yàlla moom la ñu jël seen xaalis di ko jaarale ci ay nit di wax ak ay nit ngir ñuy wax ak Idrissa Seck ñu koy jàppale. loolu dama am liste mi ngi nii je dénonce incha allah dimanche ci guddi dinaa def benn live boo xam ne yow sax bëgg naa seen site bi ngeen ñëw ngeen def ko direct incha allahu taala ñu wax kenn ku ci nekk nga jaarale sa xaalis li ñuy wax lu leer la li ñuy wax képp koo xam ne mën nga ko weddi pare nañ sax pour nga yóbbuñ ci yoon ñu leeral loolu parce que li ñuy wax fortaat wuñu ko lu wér la ñu dafa am ñoo xam ne dañ doon jël seen xaalis di ko jaarale ci ay nit di yóbbu di dénkaani seen bopp nit nag bu la joxee responsabilité te gëmatoo ko lii ngor tey ful la ngay nga bàyyi dem di jàppale kanam mais mënu nekk ci ay tànkam ba pare du gor ay tànk loolu moom insha allahu taala li ñuy wax fortaat wuñu ko lu leer la kenn ku ci nekk sa xaalis cirque yi mu def am na ñoo xam ne seen xaalis ñetti cirque la def doo ko àgg ci Idrissa Seck maanaam dem dem jox ko. jox ko nit mu jox ko nit mu jox ko nit mu doog ko jox Idrissa pour ñu yaakaar ne nit ñi duñ ko xam mais fii réew mi kenn mënu fay def lu nit ñi xam naa ne ni ma ko xamee nu ko ko président Macky Sall xamee ñi nga xam ne nag dañ leen di tudd naan dañ doon xeex Macky Sall loolu du débat parce que nit ku ne am nga droit xeex ku la neex rek ku la neex bu président bi gagné président wu Sénégal yëpp la mais li dul ngor mooy lu ñu sunu yi def jël seen xaalis di ko jox Idrissa Seck dénkaane seen bopp ba pare wane ne Macky Sall lañ àndal moom du ngor du du nit nit ku baax du doxale noonu ku mu neex nag nga dem jàkkaarloo comme Idrissa Seck nu mu def jàkkaarloo Macky Sall bu la yàlla mayee nga jël bu la xañee nga nangu dogalu yàlla loolu kenn du ci mere kenn kenn du ci balaame kenn ku mu neex nga dem ànd ak Idrissa fan nga jàppale ko comprendre c'est la peine nit wax ne diw laa doon jàppale wala laa doon jàppale kenn ku ci nekk li nga defal Macky Sall virgule fi mu toog xam na ko Macky Sall bu fekkee da ngeen a jàpp ne li ñuy wax ci internet ak télé ci loolu lay amee information ba tax kenn ku nekk ngembul sa nit mu lay waxal Macky Sall passé na foofu parce que information yu mu am président de la République na di xamee li xew ci réew mi ay journal kon ñiy wax li ñuy wax lu ci média yi dañuy yàq dañuy yàqal dañuy yàqal seen bopp parce que li ñu gëm mooy Macky Sall moom fi ne nii moom moo am légitimité wu moom la sénégalais yi fal su ko neexee mu dem jëli ku ko neex dugal ko ci gouvernement gëw ne kenn mën na ko pressionné kenn mën na ko def loolu lu ko neexul. te Macky Sall bi ma xam gëm ko comme démb ba mu soxlawee la doon def li nga xam ne mooy mbirum sénégalais rawatina bi nga demee ba nga xam ne soxlawul dana gën a góorgóorlu ci mbiru soxla sénégalais amul ku muy neexal amul ku muy raal ginnaaw li ma gëm mooy gouvernement bi di ñëw su ko Macky Sall tegee sénégalais yëpp seen xel dina dal parce que dana wane ne bëgg na Sénégal dana wane ne am na fu mu bëgg a jëmee Sénégal du ci def ak par parloo ñii ma gis nag ñu ci boo gisee ñuy tëb di dal di ko wax xam nañ ne duñ fa réer démb la. moo nekkoon seen dernier toog salle conseil des ñoo la gën a xamal seen bopp li ci des dañuy parce que xam nañ li ñu def au fond boo gisee ñuy tëb di wax ñu ci bari xam nañ li ñu def. d' accord donc donc pour pour pour ñu ci bari dañuy dañu ŋarale woon. dañu ŋarale mais def ko ak manière boo xam ne secret jàpp na nit ñi duñ xam. Mhm. damaa jëlale dama ne ñun ku mel ne man exemple duñ ci liggéey ba am ci information yu wér. rawatina président de la république bi nga xam ne tous les informations ci Sénégal bu xëyee suba mu tegu ci taabalam ñoom war nañ xam ne li ñu def mënu mënu Macky Sall kon kay nañ xam ne ñoom képp koo xam ne def nga lu mel noonu fa nga toog ci sa ci sa sa kër wala sa bureau xalaatal ne lii Mouhamed Sylla di wax Macky Sall ku gën a xam ku ko def xam nga ku ko deful xam li may wax nag su ma génnee liste parce que dafa am élément yu ma dese mais dimanche su ma génnee liste képp koo xam ne li ma wax weddi nga ko wala nga dëgg boo ma yóbboo ci yoon ma génne la preuve yu a ne yaa ko def. non mais c'est grave ça mais euh, démb moo dernier conseil des ministres. Mm-hmm. yow tey boo nekkoon ci amoon audience ak Macky Sall lan nga koy conseil ci prochain gouvernement bi ñu ñëwee ñu ko présenté avant le 4 avril. Euh, bi ci ëpp solo ci àdduna. mooy que ci sama xalaat bokk d'abord mm. euh, mu teg gouvernement boo xam ne. ay nit yu jege askan wi la doon parce que mandat bi euh, mën naa wax ne li tax muy metti ci président de la république mooy que ñaar yu mu bëgg boole ta te nga xam ne mooy warteefu parce que Sénégal loolu laaj bu di ñu toll mooy que war na liggéey réew mi waaye war na fexe ba stabilité am ci réew mi stabilité bi nag li koy indi mooy nit ñi di jege di jegewante di waxtaan di xam fi mbir yi toll loolu dana tax daral xelu Sénégal yi en même temps mu bëgg a te cinq ans dafa gàtt naa wax ne sept yi jàmbaaram ak bëgg liggéeyam moo tax mu def fi li mu fi def mais sept ans yi lii mu fi def xaju ci woon kon day wane ne cinq ans yi dina métti ci moom métti ci gouvernement mais na ut ay nit yoo xam ne yu ñetti critère daal war nañ ko njëkk mooy na nekk ay nit yu ko te loolu am na ci ay benn benn ci yoo xam ne mi ngi ñi ngi woon ci ñoom commencé ko par premier nit ku ko déggal na na ay nit yoo xam ne nit yu ko nit yu koy nit nit yu nangoo liggéey leen en même temps nit yu xam Sénégal xam seen comportement sénégalais surtout parce que même boo liggéey réew ba mel ne or te stabilité amul ci dëkk bi li ngay def du mën a feeñ ñun werante wuñ ne Macky Sall tey am na ay rëq-rëq yu am ci premier mandat bi yu ndaw yoo xam ne bu ci amutoon campagne du am ci élection parce que def na fi lu sénégalais yëpp mën a teg seen mais rëq-rëq yi la ko nit ñi di rapproché lu ci mel ne justice bi ak yeneen te gis nga ñi nga xam ne seen bopp la ñuy yitteel ak bëgg ay guerre position gis nga débat yi ñu commencé yëkkatiwaat. Mm-hmm. yow yaa ngi gagné mandat. Mm-hmm. prêté ko serment sax ñu commencé la génneel mandat bu jeex encore. Mm-hmm. loolu accégul loolu du suñu wax. kenn nit moo ci am lu mu war a leeral muy président Macky Sall. te man li ma jàpp te gëm ko. mooy ngoram ak dignitéem ak kàddoom. ak jaar-jaaram bu rafet du ko yàq ci. way woo xam ne amul ko njariñ. parce que troisième mandat même bu ko laajoon quatrième bi day ñëw. Mhm. kon jàpp naa ne génn génn bu rafet. Mhm. yeneen a ngi fi ci àdduna bi te xale la. Mhm. yéene nañ ko ko ñun. mu nekk leneen ci àdduna bi parce que gis nañ ne. fu set fu abdu Afrique ma sa dem. bu ci président Macky Sall bokkee moom mooy nekk leader. loolu signe na ci moom ne bu génnam rafetee. lu ne mën na ko jëlee ci àdduna bi. loolu lañ ko yéene. mais bëgguñu ñu yóbboo ko ci yenn débat yi. mais mais mais euh, monsieur Sylla vous êtes responsable APR euh, à Touba. nga foofu. sur qui le président compte. Mmh. Uh-huh. Mais malheureusement, le président, notamment son parti APR, il a ba léegi tek loxo Touba. Uh-huh. Ñu bal ma ci cadre politiquement 100 ans. Lu wax mënu leen gagné Touba ak Mbacké. Uh-huh. Yow pour yow lan moo waral loolu. waaw d' abord dafa am loo xam ne dafa sew neexul expliquer. parce que mbir mu nekk dafa am noo ko jàngate. jàngat yi dafay ute. bu ci njëkk mooy que mën nañu wax ne gagné wuñu Touba. ñu mm. koy perte mais nit ki ñàkk a gagné élection ni ñu koy nattee mooy pourcentage bi ngay am. Mm. c'est important parce que yaakaar naa élection bu fa président Massa dem naa ci ñi utiwul mm. xam naa qu'est-ce qui se passe xam naa chiffres yi ñu fa am ak li ñu fa am rek. élection 2012 ñu ngi fa am 24000 voix législative 2012 référendum ñu ngi fa am 32000. les législatives yi passé ñu fa am 37 800 37 800 lañ jógee dem 69 000 50 pour cent de taux de participation boo xam ne yokk nañ ci ñun lañ fa liggéey mais dëgg dëgg dëgg dëgg lu tere ñu am dëgg dëgg dëgg li ñu bëgg ñaar moo ñu ko xam bi ci njëkk ci suñu ay leader ci président Macky Sall parce que moom. Euh, rapproche bi nga xam ne war na am digganteem ak askanu Touba amul ab jaxasoo ci seen si rek la yam il faut ñu wax ko que mooy dëgg beneen bi ci des mooy que am na débat yoo xam ne yeneen këri diine ñoo ko sulli ba tax waa kër Idriss Seck yi laxasu ci ngir maanaam profité def débat bi ci affaire tarixa ak tarixa te loolu doon dëgg parce que tey bu fekkoonte ne nekk murid lañu war a wootale Idriss Seck ma digg ñàkk gën a nekk murid moo ko jëkk a nekk li ko sëñ Mountakha seetal ba ki dem dégg ngeen ko kon affaire bi du association ay murit gën na nekk murit Macky Sall parce que moo ko njëkk nekk ma xam ci lu wér a wér a wér kon affaire bi du ay du ay du ay affaire tarixa ak affaire yooyu mm. comprendre mais lu ma gëm au fond mooy rapproche bi am diggante askanu Touba ak président Macky Sall moo desee leer parce que président Macky Sall bu amee lu muy def Touba sax bu ko def ci turam daf koy jox kilifa yi ñoom ñoo koy defal seen bopp fi mu ne tey bëri na tëli booy wax ne Touba Macky Sall ko def ñu ne la sëñ bee ko fi def li waral ñu ne sëñ bee ko fi def sëñ bee ko taxaw dafa am loo xam ne foog mu leeral ko mu ut ay nit yoo xam ne dañuy dem ci mën a dem ci askan bi expliquer leen qu'est-ce qui se passe li muy doxalee nan moo tax mu koy doxalee nii parce que tey président Macky Sall bu bëggoon a may Touba 25 kilomètres de de moom du xam fan lay jaar day ñëw rek jox ko sëñ bi sëñ bi mooy xool fu ko neex mu def ko fa comprendre loolu su fekkee yow mënuloo ko expliquer wala ñemewul nit ñi parce que sensible na sen sen sensibilité boo xam ne kenn ñemewu ci jaar ñoom amul ñemuñu sax wax ci Touba parce que buñ ci wax mën nga glisser loolu la ñuy ragal et puis ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk Touba dëkk fa tam wax dëgg yàlla euh, ñu ngi communiquer mais doyul su ma la déggee sax su ma la euh, mënee wax sax gis nga am na suñu mbokk boo xam ne suñu mag suñu sëriñ sëñ Modou Bala Doli à chaque instant mu ci communiquer parce que dëkk bu 2 millions personnes nekk ay benn benn nit duñ ci communiquer. Mm-hmm. ñu bari ñoo war a communiquer et di ubbi xelu sénégalais yi kenn ku ci nekk ñi nga tollool ñi nga mën a waxal ngay wax ak ñoom ñu comprendre qu'est-ce se passe parce que président Macky Sall ñun ci lu ñu xam li mu def Touba benn président mosu ko fa def te gëmuñu ne fi ñëwaat di ko def parce que li mu leen nangu gëmu ko loolu moom c'est important mais daal su bëggee problème am ak Touba réglé wu dina indi rapprochement ak population bi directement. xam nga population bi du xaalis booy jël di leen ko yëkkat di leen ko jox te pourtant mi ngi jël ay saakooy xaalis maletu xaalis di ko yóbbu Touba mais fan loolu moom mi ko yóbbu moo parce que ñi ko jàppale sax yëguñu seen bopp ci xaalis boobu ngay wax comprendre kon damaa jëlale ñi lay jàppale mais kon askan bi nga xam ne ñoo nekk suuf te quatre vingt quatre vingt dix pour cent population Touba mooy askan bi moom ñu muy seeti matuñu dix pour cent doon dañooy suñuy kilifa. ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu yiir ñooñu war man mais daf ci war a boole askan bi parce que ñee cër bi mu leen jox mooy seen cër moom la leen yàlla jox mu jox leen ko ñu am ko mu ñàkk leen ko jox ñu am ko waaye nag na jël askan bi tenir en compte wut ay ndaw bu dee ndaw ñi nga wut ay ndaw yabal leen ci ñoom bu dee mag ñi nga wut ay mag yabal leen ci ñoom bu dee ay nit yoo xam ne dañu mën a communiquer xam li ngay def ñu def ñu jàngat ko demal la ci rajo locale yi ak ci télé locale yi ak ci télé yeeg seen jataay yeeg fu ñu mën a dem leeral yow qu'est-ce qui se passe fan nga jël fan nga jël lan nga yéene Touba lan nga fi tàmbali lan nga fi bëgg a def après loolu bu leeree ci bopp askan wi leeral la ci des pour ñu gunge la ci du problème mais wóor na la ne sanctionné bi ñu koy sanctionné nii amul leen njariñ ñoom très sincèrement et puis nag sanctionné sanctionné nañ ko mais nañu bàyyi di wax comme ni ko Diop si waxee parce que euh, bu fekkente ne 41 pour cent ci dëkk bu ñu yow. bu ñu la sanctionné tam méttiwul. Hmm. comprendre loolu moom 41 pour cent waa Touba jël nañ seen xob ne Macky Sall dañoo bëgg nga dem deuxième tour 41 pour cent yooyu soo ko boolee moo ëpp Matam moo ëpp Sédhiou moo ëpp Kolda kon bu ñu ko xebal. Hmm. ñii tëb dal Kolda li ñu am Touba boo boolee ñoom 100 pour cent wu c'est boo fa amoon 100 pour cent 69000 voix wu Touba yëpp gën. parce que moo gën a bari kon nag nañu nañu nañu jàngat bu baax la ñuy wax parce que bett kenn du bett kenn kenn du kenn du xili kenn parce que ñun bañ ci dugg du question woon ay affaire ay ay ay gagné Touba wala ñàkk gagné Touba li doon suñuy mébét mooy injustice bu ñu tegoon président Macky Sall. ñu hmm. xeexle ko ba yàlla jox ko réew mi. bi ko yàlla joxee réew mi itam terewul ku ko mën a sanctionné ci àdduna yàlla moom mi ngi koy jox li mu bëgg mooy heure bu élection amee lim ci bëgg mu am ko ci mooy am majorité hmm. loolu rek moo am beneen bi ci des nag mooy Macky Sall ñu koy félicité parce que prêté gul serment ci deuxième mandat mhm. te yabale na Touba ñu tali yu mag yi nga xam ne ñu ngi koy def moo profité sax commencé communiquer tali yu mag yi euh, mbedd yi ñuy wax 30 Touba mhm. yëpp mu koy tali moom koy natt fii may wax ak yow te prêté gul kon war na leen ni sanctionnement bi man yëguma ko mhm. li ma war mooy liggéeyal sëriñ bi liggéeyal sénégal yi parce que ay sénégalais lañ dëkk bu mag li fa war a am danaa ko fa def. Mm-hmm. li des mu bàyyee ko la mm-hmm. ba pare bàyyi leen di xool. Mm-hmm. te loolu gëm naa ne nag ñun ñi doon sanctionné ñëpp ñi doon sanctionné. te nekk Touba nekk ci ci ci département bu Mbacké bi gëm naa ne war nañoo xaw a am tuuti nag gàcce parce que nag nit boo ko sanctionné sanctionnement bu mel noonu mu wëlbatiku bëgg la fayee lii mu la nar a fayee ak li mu fa njëkkoon a def yaakaar naa mën naa bàyyi xel te erreur bi daal su ma sañoon mais mais en dehors de si Sylla. c'est la euh, peut-être toute dernière question. su qui le président mën a compter à Touba. waaw xam nga loolu dafay jafe pour ma wax ko publiquement mais en tout cas man ci li ma xam mun naa la citer jeunes yoo xam ne bu leen président jëloon problème am réglé wu mag ñoo xam ne bu leen président jëloon dooleel leen problème am wu femmes yoo xam ne bu leen président jëloon dooleem réglé wu mais nag nekkul lu ñu mën a wax ci ci média. parce que bu fekkee danga nekk borom mbokk ñëpp di say mbokk di say ay xarit nga seq ñoom jàmm tànn dafa xaw a sew te loolu laay bañ waaye daal su su su ma su ma président def la woon document man personnellement mën du ma ci bokk mën naa ci bañ a bokk pour pour que équilibré waaye nga xam ne li ma koy wax wal Qur'aan al-aziim élection yu njëkk amat président dina gañ a Touba parce que ci base yu leer laa koy teg yoo xam ne lenn rek moom ma yitte muy moom am du ma ci teg sama intérêt du ma ci xaritoo du ma ci teg mbokkoo parce que yàlla dogal na ci dëkk balaa dëkk xam naa fa dara euh, falaa màggee falaa yoroo ñépp xam nañ ma fa te xam naa ne ni ma bëggee président Macky Sall mayu ma ma koy saboté kon man bu ñu ma defloo woon document boo leen defalee document vraiment yaakaar naa buñ ci jaaree ci tracé yi ma leen wax du ñu toog deux mois trois mois te gisuñu soppeeku carrément ci seen diggante ak Touba que doxalin bi moo baaxul mais li mu fay def xajut ci Touba wallaahi ci politique. Mm-hmm. li mu fay dugal xaju fa. Mm-hmm. mais fa jaar moo dul àgg. Mm-hmm. politique dafa am lu ñuy wax lantinoor. tant que lantinoor gi mu ngi tàgg. li ngay bëgg doo ko am. loolu nag junj la du ma du euh, ñu ngi leen di sant bu baax di leen di ñaan ci réew mi jàmm. yàlla yokk fi jàmm yokk fi sutura. Euh, te mandat wu président Macky Sall bi ñuy ñaan. mu nekk mandat wu jàmm. boo xam ne dafay dajale Sénégalais yi boole leen ñu xam ne li ñu bokk moo ëpp lépp muy Sénégal yàlla def fi jàmm ak stabilité bu yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo te yàlla def naataange te président li mu yéene ci réew mi mu àggale ko ba nga xam ne ki fiy ñëwaat 2024 day nekk koo xam ne bu ñëwee day àggale waaye bu ko nekk koo xam ne bu ñëwee day fekk affaire yi réer muy làmbatu président daal li ñu koy wax mooy mandat bi na àggale ay sàncem te joxañ Sénégal yoon boo xam ne ku ñëwati ci ngay jaar dootoo ko mën a wàcc. ñun tam ñu ngi demandé benn affaire ñu ngi koy ñaan tam institution yi li ci des a ko néew. na ko réglementé ba nga xam ne moom bu fi jógee ñu am beneen coow. parce que défilé ci moom. bu fekkee coow nga jëlee ci réew. coow moo tax nga jot ci réew. bu coow loolu boo jotee ci réew mi booy bàyyi réew mi war nga fexe coow la doo ko fa bàyyi nga fay ko. te moom moom bi Sénégal de Sénégal bu léegi moo fi nekk gum président boo xam ne moom la yàlla dogal stabilité wu réew mi fi ci moom lañ ci ëppi moom yaakaar parce que porte bi mu am Ablaye Wade amoon na ko perte Ablaye Wade ko njëkk am Abdou Diouf amul Ablaye Wade ko njëkk am perte nit nag boo ko remplacé nga xam ne lii tax mu perte li mu amoon yaakaar naa ko ren di jàngale woon kon ñu ngi koy ñaan mu defar ko mu mu mu defaral ñu suñu institution yi et puis tegal ñu Sénégal ci raay boo xam ne ku ñëwati doo ko mën a tourné te loolu bu ko defee dana am way boo xam ne du fay te ñun loolu nit nag soo ko bëggee da nga koy yéene jàmm da nga koy yéene lu baax asalaamaaleykum